fee ñu ngi ci mu daay na ak Franc arbitre bi sifflé na mu daay na ak Franc ña ngay lewato mu na ak Franc mu daay na ak Franc ñu ngi ci compétition bi mu daay na frapp mu daay na daw na jëli ko mu daay na ko mu daay na franc jàpp bi baax na franc bañ na mu daay na franc ñu ngi ci compétition bi mu daay na franc mu daay na jàpp na fi mu jàpp baax na mu daay na fi mu baax na franc bañ na tee na bopp mu daay na mbot na yegg nañu mu daay na franc mu daay da franc mu daay da franc ñu nga ci compétition bi ñoom ñaar mu daay da fi mu takk baax na tegal siège ma ngay xeeñ franc crochet na loxo bi mu daay na franc est-ce que mbot mun naa am wala déet mu daay na franc mu daay na franc ñoom ñaari mbëri ndeysaan Moudaye de Franc Moudaye Moudaye de ak Franc <laughs> Moudaye de ak Franc Moudaye de bum jàpp baax na Moudaye de ak Franc ñu ngi ci compétition bi ba Mboudaye ne ak Franc Mboudaye ne daw ak Franc Mboudaye ne ne ak Franc Mbudaay na ak Franc Mbudaay na ak Franc Mbudaay na ak Franc ñu ngi jàppante ba tey Mbudaay fi mu Franc mbot na ko nañ saaku yi da koo bëgg Franc ngay arrière Franc ngay arrière da koy daan na Franc daan na Mbudaay na Franc daan na mu daay na daan na ko jël bu rëy